appelle waaye man la kay sax na koy maa ngi envoyé foofu noonu benn booy rakku international waa mu ngi ñëw foofu noonu am am lu mu la jox dafa soxla xar quoi waaw léegi bu ñëwee rek nga seeram mais wuy ma ko baa dafa def genre afro affaire yooyu noonu waaw mooy booy booy boy play kii rek play booy waaw ok rafet na léegi-léegi naa yàlla ji tàng na peeru tàngaay boo xamante ne bu ko fi tawee rek du baax mu ngi koy baxal lekk waaye sama mbaar bu tawee du baax de mais yàlla baax na yàlla baax na. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Père si ànd naa la. ça va alhamdulilah su loo nekk. bien waaye am bu baax. Euh, man la rakku l'international Yirim te mu dëkk si koñ bi. l'international. nee na woo na la quoi sama grand frère bi. waaw waaw waaw waaw waaw oo na ma oo na ma ah moo la jox lii. waaw ah, moo ma jox lii bisimilah. bisimilah na ngeen dafa tàngaay bi ah, sant yàlla bu tàng na de. waaw ah, gis nga de. da ngeen dafa corona gi. daa moom dëkk bi dafa tàng ah ñu ngi nii nag. jàq na dëkk bi de xar amul xar amul xam nga crise mondiale bi fépp la. waaye eh, xar maa ngi. waaw xar bii la waaw.

du jàmm. eh booy cerveau. su loo ne. yaa ngi ci yaa si jàmm. daral bi nag xëccal sees bi xëccal sees bi daral yaa ngi nii. xëccal sees bi dem na dem na dem na. dem na dem na dem na dem na. ah ça va yaa ngi si jàmm. maa ngi nii de. ay loolu. ah. d'accord ma ñëw mooy nag da nga bëgg dërëm. naaj bi daa tàng nga daloo dara. tubaab bi naan slow down slow down. waaw daaw slow down yow. aja bisimilah. ma ah, la jox lii. Euh, rakul um, euh, l' international xaw ma eh, mi si koñ mi. waaw waaw waaw ñëw. waaw. yaa ngi si jàmm. ay loolu. fii ah l' inter rakku l' yaa ngi gis paquet bi ndax nee na yéen ñaar ah daaji ma ko de. paquet bi yaa ko daaji sa bopp ah, yaa ko daaji sa mu ngi nii ñoo ko gisandoo. bàyyi ñoo ko gisandoo de mu ngi nii daaji eh. ma si tuus. kooku nu mel. benn booy bu ñuul la nii. yow la ko deful benn afro affaire yooyu noonu bu bu fii booy bu tant ñëwu fii. booy da nga Pwè servou, wè! Pwè, wè! Pwè servou, wè! Pwè servou! Pwè!